Ahmed Dieng la ñu gën koo xam ci Dieng Saala bokk si membre PDS Touba euh, ci njiitu coordinateur Khadim Tall. waaw xam nga loolu da di nekk bànqaas bu am solo ci parti bi boo xam ne Abdoulaye def affaire daf ko ñor mu bëgg ko mu yàgg teewal parce que mën naa ne boo xoolee bànqaas moom li tax mu am solo ci parti bi boo xoolee ci ñi ko mas a doon Alioune Sow ci ñoom euh, Toussaint Manga ñoom ñëpp ay ay ba ci Baara Gaye fa lañ jaar mu nekk bànqaas bu am solo boo xam parti da koy soxla fii ci Touba nag commune bu Touba ñu waroon renouveler bureau bi ñu ngi ko war a defee Mamour Sall moom moo nekkoon moo nekkoon UGTL mais moom jeexal na agé bu yàgg sax mais dafa toogoon rek léegi nag bon bi ñu waree defaraat affaire yi Mamour ci boppam xëy suba woote benn réunion rek ñëw ne. di renouveler bi bureau UGTEL te UGTEL ñun liñ ci xamoon ci bu yàgg bi waroon na woote réunion yoo xam ne comme ni ko ñoom bàcc soog doon defee ak ñoom móorloo ñoo ñëpp dañ fi jaaroon jaarin bu rafet joxe ko joxin wu am solo maamoon ñu dénk ko ko jox ko ko kon man damaa jàpp ne moom buy ñëwaat war koo joxe war na ko xool ci joxin wu rafet mu def ko mais li ñu gis mooy dafa ñëw dafa réunion information pour waxtaan ak nit ñi wax leen fi ñu jëm wax leen tamit euh, naka la ñuy demee ci élection yi ci kaw candidat yi bu baree ñu xool na la dem ba def consensus waxtaan ba juboo mais yëpp defu ko daa xëy rek un bon jour xëy suba rek woote yi ñoo ñëw ne ku bëgg doon kandaa ñëw doon kandaa nangam nangam affaire yooyu biñ ñëwee candidat yi bari na fi ñu ko doon defee baaxul lieu bi baaxul amul sécurité ñu dem ba ci digg ba Mamor moom. moom mbërëm moo nekk Ibrahima Seck loolu ñëpp xam nañ ko mu ñëw bëgg ñoo proposé Maam Mor ñu ne moom ñu proposé Ibrahima Seck ñu ne ko loolu duñ ko nangu ñu dañoo bëgg dem ci ay élection yu leer yu wér comme ni ñu ko ko joxee woon moom mu defe ko noonu comme moom day dem na dem mais li ñu doon nangu mooy parti bi la ñu nangu kenn ku ko tayle di ko tayle di ko jox ñoo xam ne sawaay dëgg-dëgg ana bi ñu leen ko nar a joxe rafetul ñun nañ dem ci élection ku gagné ñu ànd ak yow raxase wul sa ginnaaw liggéey ndaw ñu liggéey ñu loolu lañ soxla mais soxlawuñ ci ay féewaloo di ñu yóbbu ci yenn yoo xam du ñu arrangé man mi nag bokk naa ci ñi taxaw ne loolu du am li tax fi ma ko teg mooy fu leer la ñun dañoo war a dëggal suñu bopp ci département bi ne lépp luñ fi nar a def te baaxul arrangé wul parti bi danañ ko dindi teg na le parti bi duñ naan kenn ku ko jaay ak ku ko tayle booloo mooy doole te euh, tey bu na sukkandiku ci alxuraan li yàlla wax mooy bu ngeen mbooloo li ngeen bëgg lépp da ngeen ko am te loolu la bëgg Xarim Tall mi nekk suñu coordinateur tamit wax yàlla ci loolu lay dox. ci loolu lay dox dox bu am solo boo xam ne chaque jour loolu moo ko ñor ci luy dundal parti bi ak luy boole parti bi xajul kenn seppiwul kenn moom ñëpp la boot en tant que coordinateur moom loolu ñëpp ñëpp la boot boddugul kenn ci ñun ñi nekk ci wa tamit à chaque fois loolu la ñuy wax. bu ngeen boot di kenn woo leen ñëpp nañ ñëw ñu rassemblé wu liggéey ci parti parti bi jëm ci kanam te ñun ay ndaw lañ ñun ñëpp ñu ci nekk ay ndaw lañ kon te fii lu ñuy xëccoo newu fi parti démocratie fi mu nekk opposition xam nga dara newu fi kon ñu ñun war nañoo toog waxtaan suñu biir xool nañu def ba juboo doon benn te bàyyi yenn intérêt yi mais itam am na ñoo xam dañu nekk si parti bi di yàq liggéeyu luñu parti bi ñoom tamit faaw ñu jéem leen wan ne leen nag comme di ngeen di yàq ñu ne dañuy defar xëy na peut-être des fois mooy waral yenn Euh, xiroo yeeg ŋaayoo mais ñun ñëpp li ñu bëgg mooy defar parti bi doon benn ñu jëm ci élection yi ñu jëm mooy suñu candidat Karim Meïssa Wade di ñëw ci jàmm ak salaam après ñu doxal te la ñu bëgg te incha allah war jàpp naa ne lu war a nekk la quoi ndax ñoo bokk bëgg-bëgg bi mais daal li ñu nangu mooy parti bi moom duñ koo taylee kooku moom suñu bakkan bi lañ ci gar régime Macky Sall moom yooyu moom yaakaar naa ne du fi gan ci niñ ko xamee ndax boo xoolee ci kaw Karim xëy na peut-être nit ñi dañuy doog comprendre jëmi jëmi Macky mais ñun ñu nekk PDS moom xam nañu nañ Macky ndax euh, bon dafa xëy suba jël suñu candidat Karim may Wade def ci kaso bi jabulise ko euh, jël askan wi duru ko suñu kaw xam nga ne dafa jël lii dafa jël laa ñi ko doon wax ñëpp tey ñoo mujj ne dem ba couvrir na Macky Sall découvrir na mag sàll li muy wax dara dara amu ci. bi mu ko dóor yat bi mu jëloon dóor ko Karim moom la dóor Khalifa mais après bi mu ñëwee ba ko dóor Ousmane Sonko ci la Sénégal yi doo comprendre que ne ndakate nag lii nag politique la mais bon gis naa nag loolu moom wax dëgg yàlla du du bokk ci démocratie li ñu war a def mooy dañu war a nekk réew moo xam réew mu démocratie ñëpp bokk ci ay unité képp ku jàddu jàddu aw yoon ñu teg la ci aw yoon rek réew mi nag nit ñi dañoo war a jëli seeni responsabilité ci li ñuy wax ak ci li ñuy jëf. mais tam réew mi réewum jàmm la waaw mais nag ki nga xam ni moom moo yore càq bi muy président Macky Sall moom moo war a xool lan mooy jàmmi réew mu dox ci. waaw ñu ngi sant rek sant bu baax di wax ñi bokk ci membre PDS ñëpp te xam ne ab laa leen ñor ak Karim Meïssa Wade ñu gën a góorlu gën a booloo mi nga may ma nag mu nuyu sama. soxna yu baax nekk si parti bi mën naa ci jiital euh, euh, présidente Khady Fall ak ñoom Naaru Karim ak soxna day Diop bu Palmera euh, ak ñoom sama yaay ñoom Mame Diarra Diouf ak ñoom ñëpp ak soxna Assou Yaaba di ay jigéen yu baax yoo xam ne ak soxna fàtte Anta Mbacké dama ko fàtte moom laa waroon a njëkkee sax mais ñoo ñëpp di ay nit ñu baax ñoo xam ne ñu sonal parti bi la di di nuyu sëñ Moussa Nour xam moom daf maa sonal ci parti bi sonal nañu trop di nuyu sama doomu nday ma nga xam ne ku ma gis gis ma ak moom ñëpp ñu nekk ay ndaw bokk parti bi di liggéey ak ñoom Maram Mbay ak nday jaam tànk ñun ñëpp di leen ziare di leen bëgg bàyyiwuma kenn bu ma limee damay juum ak Bas Dieng ñoom Bada waa série entreprise union bi yeeg ñëpp bàyyiwuma kenn di leen ziare bu baax di leen bëgg di leen jox seen wàccuwaay wér a wér a